برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي له شكوري على حياتي سلام سما مكسيخنا نغدف نعم، وعليكم سلام يا سمرك سما خريت عائشة بايان تي جامو وامان تي جامو بباخ تينك عائشة histoire bu am solo laa la bëgg a nettali muy histoire maam Serigne Touba Xaadim Rasoul muy nitu yàlla ko mag kooku. ak Kasa. sëriñ Touba nag moom nitu yàlla la te royuwaay la jamono bu nekk war nañ di ko rey ndax ay melokaanam yu rafet liggéeyal na yàlla ci lislaam liggéey bu rëy rëy rëy bay na waaram ci toolu lislaam mat na ñu xamale ko ak doomu aadama yi moom Serigne Touba nekk na koo xam ne euh, melokaanam ak jikkoom ak ay jëfam rëy na loolu ci kanamu jullit yëpp rawatina ci réew mi nga xam ne mooy Sénégal. tax nañu war koo xamale ak ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi waaye balaa ñu ciy xuusandi dañuy wax li nga xam ne mooy ay meloom waaye balaa ñoo tàmbali ci meloom dañuy ñëw ci fi mu bokk ak ay maamam ak ñi nga xam ne ñoo ko meññ maam Sëriñ Tuubaa nag ci arab moom la ñuy wax Mohamed ibnu Mohamed ibnu Habibullah Habibullah nag mooy maamam maam Balla maam Balla baayam moo ngi tuddoon Mouhamadul Xayri ñu koy wax maam Maharam maam Maharam moom itam baayam Habibullah muy Maam la mu ngi tuddee Maam Balla mu mag Maam la moom itam baayam moo ngi tuddoon Mouhamadul Kabir Mouhamadul Kabir baayam moo ngi tuddoon Shahid Shahid baayam moo ngi tuddoon Ousmane seen maam moo ngi tuddoon Alxaaji Cheikh Mbacke moom moo ngi dëkkoon Fuuta Tooro ñooñu ay tukkulóor lañ woon wax nañ ne boo leen toppee dañuy dem ba ci nit ñu weex ñi ci askan bu ñuy wax moo di nan la jële naa ci sëriñ Basiru Mbacke xelkom moo wax ne alxaaji Cheikh Mbàkke moomu moo ngi gàddaay jóge ci dëkk maamam boobu di Fuuta Tooro ñëw fi nga xam ne mooy Jolof bi mu ñëwee Jolof nag moo ngi sañ ci dëkk bu ñuy wax ngénneen ngénneen googu fa la nekk di fa jàngale ak di fa bay di sàkku dund gu lew di jàngal nit ñi li nga xam ne mooy diina moom alaaji Cheikh Mbàkke moomu fa la nekk Jolof mbooloo mu takku dajaloo ci moom di jàng ñii di barkeelu ci moom ñii di sàkku xam-xam nekk na foofu Jolof moom maam Cheikh Mbàkke Di fukki at Yoham xam ne ak bay rek lay liggéey fa di jaamu yalla boole di bay di dundee noonu mu nekkee foofu buuru jolof boobu ñuy wax bërgal ma fent ñang daal di koy wóolu am ci moom yaakaar yëkkati benn sëram maanaam benn rakkam bu jigéen bu ñuy wax awañang daal di ko koy may mu nekk awañang mam maharam muhammadil Khairi. alhaaji cheikh mbàkke nag moom ay mbokkam ñi dañoo nekk Mauritanie ñeneen ñi dem Gambie côté Gambie yooyu nekk fa maam maharam nag moom mooy gane ci atum junne ak téeméer ak fukk ak benn ci gàddaay gi maam maharam nag mi mu gane di Mam Balla mu mag moo ko jàngal alxuraan ba mu mokkal alxuraan ginnaaw bu papaam génnee àdduna ci la gàddaay jógee fi nga xam ne Jolof dem ca dëkk boo xam ne wax dal ci dëkk bu ñuy wax Tàbbilang ngir jàng foofu xam-xam dëkk boobu di tàbbilang ca daara jooju boroom xam-xam bu mag moo fa nekk ñu koy wax maam Masamba caam maam Masamba Thiam moomu boroom xam-xam bu mag la woon ci jamono boobu maam Maaram nag ñëw na ci moom ngir sàkku li nga xam ne mooy xam-xam ginnaaw bi mu ñëwee ci daara ja nekk fa di fa jàng xamante na fa ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Ndumbe moom itamit mu nekk fa donga di jàng comme moom di sàkku xam-xam sëriñ Maxtaar Ndumbe moomu moo dëkkoon kokki ginnaaw bi tam xamante fa ku ñuy wax Malamine Sarr mu nekk wëlëreem Malamin Sarr moom itam moo dëkkoon fu ñuy wax nek noonu maam maaram nekk ca daara jooju di fa jàng di fa sàkku xam-xam boole koog di liggéey liggéey bi mu liggéey nag mooy di liggéeyal ki nga di bay boleh kok di jàng am na sax ñu wax ne jamono bi mu fay nekk moo yoroon dund waa kër ga boole koog di defa loo xam ne kenn def ko fa moom maam maaram bi bi nga ne am njàngam mat na mu war jolof ngir ñibbi ba muy jolof sëriñam boobu di maam samba Thiam daf koo gërëm bi mu koy gërëm nag wax na ci moom wax joo xam ne dafa siiwoon ci jamono boobu wax ji nag mooy dafa wax ne barke bi day jógee na fi top ki nga xam ne Maharam barke bi nekkoon ci daara jëpp top na mam Maharam mi loolu nag di gàngu gu rafet ci ki nga xam Maharam di mamu ku tedd ki Cheikhul Khadim ginnaaw bu mu delloo Jolof moom maam Maharam daal dinay sanc dëkk boo xam ne mu ngi tudd Mbacke Sa Ñànka ginnaaw bu mu sancee dëkk bi dinay jël soxna dom nijaayam bu ñuy wax soxna Awa sohna soxna Awa Ñang moom nag am naa moom ñetti doom Ibrahima Awa ak Asta bake ak soxna Mbàkke sëñ Ibrahima Awa Ñang moomu nag dah mom waa ibrahim dimb yi ndax moom sëñ Ibrahima moomu dafa daan jàngale alxuraan di tok ci garabu dimb ba tax nit ñi di ko askanale dimbu googu mu daan tok ki nga xam ne moy mooy soxna Mbàkke moom mooy maami Xaadima Jaxate Kala dah soxna Mbàkke moomu dafa daan jàng di ànd ak borom këram ginnaaw bi mu jëlaat soxna suñuy wax soxna Farimata Seck soxna Farimata Seck moom am naa ak moom ñaari doom ku ñuy wax Ahmadou Farimata ak Thierno Farimata ginnaaw bi mu jëlaat soxna suñuy wax soxna Bousso soxna Bousso moom am naa ak moom ñaari doom Ahmadou soxna Bousso ak Sayar soxna Bousso Ahmadou soxna Bousso moomu mooy maami soxna jaara maam jaara Bousso ki nga xam ne itam mooy Sayar soxna Bousso mooy maami Serigne Mandoumbe ginnaaw bi mu amaat soxna bu ñuy wax soxna Mbay soxna mbay nag moom am na ak moom benn doom bu ñuy wax maa abdu soxna mbay ginnaaw bi mu jëlaat ku ñuy wax soxna ab sa njaay am na ak moom benn doom bu ñuy wax soxna seyna bu mbàkke ginnaaw bi la jëlaat ku ñuy wax soxna xadi jóob soxna xadi jóob moomu mooy maami sëriñ balla joor ak sëriñ ma abdu mbàkke mbàkke bari ginnaaw bi nag la amaat ku ñuy wax soxna kan soxna aysa kan moomu nag mooy way juru balla mam balla nag mooy caatu mam maharam waaye soxna aysa kan moomu wax nañ ne amoon na fukki waaye yëpp dañoo dellu maanaam dañoo wuy ji sunu borom ba mu des maam Balla mi nga xam ne mooy caatam. li waral njabootug maam Maharam nekk Mbàkke Bawal ci jamono yooyu ki nga xam ne mooy Malamine Sarr mi nekkoon tàbbilang doon jàng alxuraan ca daara ja te fekkante fa woon ak sëriñ maam Maharam ak ki nga xam ne itam mooy sëriñ Maxtaar Ndumbe mi dëkkoon kokki moom Malamine Sarr moomu doon fa jàng ca nga xam ne mooy maam Masamba Thiam ginnaaw bi nga xamee ne ñoom ñëpp delluwaat nañ ku nekk nekk sab dëkk sanc ko Malamine Sarr nag daal di sanc dëkk bu ñuy wax caareen sëriñ Maxtaan Dumbe sanc kokki ki nga xam ne itam mooy sëriñ Mam Maaram daal di sanc dëkk bi nga xam ne mooy Mbàkke Sañanka ca Jolof ki nga xam ne mooy Malamine saar nag bi mu nekkee caareen di fa jàngale mbooloo mu takku daal di koy wuyu si mu amoon barke lool fi muy jàngale nit ñi dañuy ñëw di sàkku ci moom xam-xam ñii ñëw di barkeelu si moom ñii ñëw di ko siyaara si mbooloo mi takk loxol loolu nag taxoon na buur bi nga xam ne moo nekkoon làmbaay ñu koy wax Damel Amari Ngoone daal di mer loolu bi mu yëgee li nga xam ne Malamine Sarr am na ko ci dëkk bi muy mbooloo mu takku ak barke bu rëy ginnaaw bi Damel Amari Ngoone daal di wax ne Malamine Sarr day li mu am ci dëkk bi man sax aw ma ko te man maay buur bi kon de ñaar dina am benn mooy ma rey ko wala ma génne ko dëkk bi ci noonu mu yebal benn waaye bu ñuy wax Masamba Fabe ngir mu nekk missionnaire ci Malamine Sarr Masamba Fabe nag dal dinay ñëw ci daara yi Malamine Sarr dal di jébbalu mel ni ab taalibe ngir nekk ci kër gi ngir wut pexe bu mën a rayee Malamine Sarr ci noonu Masamba Fabe ne ci daara ji jébbalu di ànd ak dongo yi te fekk lépp ab espion la bi mu fa nekkee lu tolloo lu tolloo at nag ginnaaw bi la fekk Malamine Sarr ci ginnaaw këram fekk kenn nekkul ci kër gi moom dong mu toog mu daal di koy bett daal di koy rendi bi ko rendee nag mu daal di daw dem làmbaay fekk fa buur bi nga xam ne mooy damel amari ngoone mi ko yebaloon xamal ne ko rayal naa la ma Lamine Sarr damel ngoone nag daal di kontaan loolu ci ki nga xam ne mooy Masamba Fabe ci noonu nag damel daal di kontaan loolu ci waajooju nga xam ne Masamba Fabe ci rey gi nga xam ne rey na ko ginnaaw bi nag ci la ko falee ci dëkk bi nga xam ne mooy Kaba moom mi nga xam ne mooy Masamba Fabe mu daal di nekk njiit ca Kaba ñu koy woowee faraka farakaba Masamba Fabe ci jamono bi nga xamee ne rey nañ ma Lamine Sarr sëriñ yëpp nag daal di mer sëriñ daara yëpp di jóge fu nekk ci àdduna bi di dajaloo fa nga xam ne mooy caareen ngir jaale ki nga xam ne mooy ma Lamine Sarr bi ñu dajaloo ñoom ñëpp ba bari ci kër ga ginnaaw bu ñu jaalee ba noppi ñu daal di waxtaan ci seen biir daal di ne dammel Amadou Ngoné de bu ñu ko seetaanee ñun sëriñ daara yëpp danañu rey wala bu ñu rey itam dina dem ba not ñu ba di ñu li nga xam ne mooy sunu diina. kon nag nañ takkatoo ngir dal ci kawam ngir mu meñu jàmm ci noonu sëriñ daara yëpp daal di déggoo ci loolu daal di takkatoo ngir xeex ak ki nga xam ne mooy Damel Amari Ngoone jamono yi nga xamee ne sëriñ daara yi ñoo ngi waajal ngir xare ak ki nga xam ne mooy Damel Amari Ngoone ci noonu bind nañ leetar yónnee ko ki nga xam ne mooy maam ngir mu waajal moom ak njabootam ngir ñu bokk ci armée bi waaye maam dafa gàntal ndax def ni leen yéen jihaatu leen bu fekkoon ngeen di jihaat dinaa ñëw ànd ak yéen dafa mel dafa am lu leen naqar rek ngeen bëgg koo saafara waaye nekkul ne da ngeen di jihaad ngir jëm yàlla suñu borom amaana bu ngeen jihaad dinaa ñëw ànd ak yéen mais seeni naqar rek ngeen bëgg a saafara ci noonu mu daal di gàntal waaye teewul sëriñ daara yi ñoom nañ ba jekk ngir xeex ak ki nga xam ne mooy dammeel ci rey gi nga xam ne rey na ko ma Lamine Sarr ci noonu dammeel moom itam daal armam daal di woo ñi nga xam ne ñooy sàq ak sogeer ak mbul ak waa làmbaay mu nekk armée bu takku nekk mbooloo mu takku ngir ñu janoo ak ñi nga xam ne ñooy sëriñ daara yi ci noonu nag ñu daal di dajee xeex xeex bu tàng jër xeex boobu nag daal nay métti lool waaye jamono yooyu ñi nga xam ne ñooy caddo yi dañoo amoon doole lool te bari lool sëriñ daara itam bari nañ waaye dañoo néew doole ndax ku ne xam na ne sëriñ daara mbiram du woon mbiru xeex maanaam mbirum diina ak mbirum jàngale képp mooy seeni mbir waaye ñi nga xam ne ñooy caddo yi ñoom naka jekk moom xeex dafa mus a nekk seen i mbir loolu nag taxoon na ceddo yi gañe nañ sëriñ daara yi ci xeex boobu daal di dal seen kaw dammel rey lu bari ci sëriñ daara yi li ci des mu jàpp leen jaam li ci des daal di daw bi xew-xew yooyu yëpp jàllee nag ginnaaw bu matee at bi ñu reyee Malamine Sarr maam Maram daal dinay ñëw ngir jaale ki nga xam ne mooy Malamine Sarr maam Maram bi muy ñëw nag moo ngi ànd ak mbooloo mu takku mbooloo mi nag ñii ay njabootam lañ ñii ay taalibeem lañ ñii ay dongam lañ ñii tamit lenn ci ay doomam lañ bi ñu ñëwee maam ñëw ci bërëb bu ñuy wax guy fukki sër bi mu ñëwee pënd bi daal dinay bari ba àgg fa nga xam ne mooy caareen waa caareen li yëpp daal di yëg ne mam maaram mooy ñëw mam maaram bi mu agsee caareen daal di jaale ki nga xam ne mooy Malamine Sarr ci anam yi mu gën a rafetee ndax mbokkam la woon te xaritam la woon euh, te mbokk sëriñ daaram la woon mam maaram bi mu jaalee ba noppi nag daal di nay yónnee ndaw ci ki nga xam ne mooy Damel Amari Ngoone ngir nuyu ko ginnaaw ba mu nuyoo Damel Damel daal di koy woolu daal di ne na ñëw ndax soxla naa ko maam maaram nag bi mu jógee woote boobu nga xam ne dammel woote na ko moom tamit mu daal di préparé wu ngir dem wuy ji dammel waaye sëriñ daara yi nekkoon foofu yëpp daal di takkatoo ñoom itam daal di ki nga xam ne mooy maam maaram ne doo dem ndax dañuy ragal soo demee dammel daal di lay rey comme ni mu reyee woon Malamine Sarr waaye maam maaram moom daal di na leen gàntal rek daal di dogu ngir dem fa nga xam ne mooy làmbaay ngir fekk ji dammel ci noonu sëriñ daara yi daal di koy ñaan ngir mu bañ a dem mu xamal leen leen muus ak gaynde yemuñu kon bàyyi leen ma dem ndax dogu naa te damay dem ci noonu nag maam maaram daal di dem ngir wuyu ki nga xam ne mooy dammeel bismil ilaahi jaaratullaahi صدق لله يوسخ النجار بسم الإله جارة الله صدق لله يوسخ النجار ما فنت تيوي فسيين فيوي كما فنت الوي ما سخن جارك ma fenta tiw way fas yéene fee